Dakar ak doomu Dangu ñaari luur ñaari super luur war na nekk ci arène bi ngi Leewtoo 18 secondes ci Leewtoo ñu ngi Leewtoo ba léegi doomu Dangu moo ñu woon ginnaaw yor na moo takk bandoo bi ci bopp bi njool mi jóge rek xam sa cosaan Thank you.

ah Jordan jekk na doomu dangu eh doomu dangu jóg. laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha doomu dangu daan na Jordan bot bu rëy jël bu rëy jël bu rëy jël bu rëy. jël bu jël bu Jordan doomu Dangu mu ngi di ñëw doomu Dangu mu ngi di ñëw doomu Dangu doomu Dangu doomu Dangu daa sonn doomu Dangu daa sonn doomu Dangu daa sonn waaw loolu doomu Dangu daan Jordan